nañu intégrer ñoom déjà dès na dugal seen xel dugal seen bopp et le président Macky Sall sera candidat aux élections de 2024 loolu nag ku ko bañ bul déposer ji lii yoon wax de parce que fii képp ku taxaw ne candidat sooy defar say parrainage su fekkee ne waxtaan dindiwu ko soit fait ce dossier du yóbbu conseil constitutionnel de doo Il y si un bi de ñaareel bi sur le plan politique mais a ñaata coalition moo coalition bu nekk am na candidat en tout cas notre parti de la paix, en attendant que la coalition se prononce mais notre candidat c'est le président Macky Sall Donc, soyez le jël nit da nga wax naa leen sànq le contexte géopolitique la montée de l'extrémisme ñu ngi wax jihadistes yi ñu ngi suñu frontière te nee nañu fuy xeeñ pétrole di xeeñ gaz dëkk yooyu leen yàkkamti ñëw taal réew la soo koy dénk dañ koy dénk am njëriñ ko am xam-xam ko am expérience ko am maturité looloo tax rien que pour la stabilité du pays et de l'Afrique, nous devons réélire le président Macky Sall. Rien que pour la stabilité. gars yi le Macky Sall projet de nañ ci loolu dañ wax terre. terre de muy daw passé na sax BRT du daw BRT day mu Nous dem terminé su marché man day loolu laa xam Dakar dem dig ñu ne dafa daanu xool leen ñu bees yi may Dakar dem dig la ñu ne parc industriel Diamniadio ñu ne data center looloo tax nag ñun ñu ne président Macky Sall mooy sunu candidat dañ koy choisir dañ koy choisir parce que ba mu fi nekkee ba léegi dafa porter l'électrification de pratiquement 500 mégawatts à pratiquement 1700 mégawatts si président Macky Sall lañ xam luy solaire tey dëkk boo dem dafa leer ndax lampe solaire suñ doon wax fi li fi président Macky Sall wax bari na loolu secteur énergie amul secteur nak booy lal te doo wax ne jàmbaar jaa ngi nii su mu continuer di law su ñu bëggee muy continuer di taxaw mooy projet la boo xam nak ne nag ñun ñëpp dañ si war a bokk ànd ko di ko xeex projet nag soo koy xeex da ngay toog sa kër rek jàpp sa ñaambur déedéet sooy xeex projet dafa naan nañu ànd si unité nañu ànd si jàmm nañu ànd pour que loolu nekk di idée contre idée projet contre projet ñu nag suñu projet projet de développement la projet d'émergence la suñu projet du gatsa suñu projet dëkku sa yaay projet moy naka la xale yi di amé liggéey suñu projet moy naka la financement yi di duggee si jigéen ñi loolu mooy le projet du président Macky Sall et c'est ça notre combat te loolu nag pour ñu yegg ci dama naan ñun ñi responsable nañu commencé défendre suñu projet ci suñu quartier. la paire de la ville de Rufisque dina oote suñu paré le département dina oote ndax nak ñun ragaluñu lan la ñu war a mën a tëjoo si ay néeg. te am suñu xel am suñu xalaat bëgg suñu président ne dañu war a toog waratuñoo wax ndax lan personne laa wax mënuñoo xoxatal kenn mënuñoo tiital ñun li ñu gëm loolu la ñuy dund li ñu gëm loolu la ñuy wax li ñu gëm moom la ñuy jëfee soldaaru Macky Sall jóg na taxaw na pour que ñu falaat lu président Macky Sall sans aucun intérêt benn intérêt rek laa si gis ñu xeex pour que Tëngéej jëm kanam Tëngéej am li nga xam ne ne sunu maam yi ku leen yee woon dinañ ne Tëngéej changé na